ca doomu yoof jóge nañ ci doomu yoof dalaat ci beneen doomu yoof ndaanaan la mais dafa gëj bëree nag Demba Thiaw tegale nag 4 ans bëriwut war a ñëw le 29 décembre ci stade Iba Mar Diop dajeeg ndaanaan bi booy Diobass Demba Thiaw maa ngi lay siyaare. waaw ñu leen doole ziar di la nuyu yéen ñëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli say naam sant suñu ñaari waajur ñuy sant waa yoof gépp di gërëm waa yoof bu baax a baax a baax a baax. oui. fan nga toll ci préparation bi le 29 décembre. waaw man maa ngi koy pare man moom chaque jour man làmb laa laa gëm te làmb mooy suma liggéey chaque jour man maa ngi si entraînement yi di xaar combat ba yàlla may ma combat kon nag man chaque jour maa ngi si entraînement yi combat man dama bett. yàlla may na la combat le 29 décembre est-ce que xam nga adversaire bi ngay bëre Boy Diobass. Mhm, Boy Diobass xam naa ko xam naa ko bu baax a baax a baax. muy ndaanaan. la. man ay ndaanaan rek lay bëri mujj digënté mak ñing balor baat ak tontu la waaw combat bu sétan naa ko combat bu gaaw waaw combat bu gaaw lu beure waaw man duma ñang balu man may dem ba caw nga def 4 ans beureu non non du 4 ans 2 ans la tok beureu ma kañ nga mujjee beure sa diggante euh moy taw non non suma combat ma rawan rawan la mujjee nga mus nga fi mujj rawan dan la hmm rawan mo mujjee dan la tok beureu wo ñew nak wara signé grand retour dal ci boy jobaas boy bu metti bi non boy jobaas man dama bëri combat bu yomb ba déggoo li ma la wax. man su ma dal sa retour fi nga ko war de. retour bi dama koy la ne Ikiri Ndakaaru eh. ñoom ñoom ñoom anti. Ikiri Ndakaaru benn champion la ma si génne muy Yékini mu mag. ñoom Malick Niang ñoom Brise de Mer foofu laa la wax Malick Niang champion bi suñu la ko àggalee yoo fii. fii la ko commencé fii la ko àggalee. mais booy Jobaas naanaan la de. booy Jobaas maa gën a doon daanaan. lamba tëri di rek bar may bëree Boy Diobass waaye Boy Diobass nekkul woon sa suma yoon. ko avance am drone traîner de ken nangou jël ku ko djel delloo ko. nga ngayou nga yow ko. yow defo risque nak yow ha deggo won limala wax. defo risque nan waxan sérieusement rek yañu yof est-ce defo risque rek. risque man dama def risque man kuma ma rek so morom la motam tax ma war a bëree moom bu lamba tegg won ci yoon ti yoon mom duma ma mom duma du ma sax moromam. kon dang ko may chance suma la déggee. dama ko may chance bëree mom muy Sobaas lan la lan la wane ba moo war a bëree moom. béréb bépp moo ko ñang baalo. kay loolu ko génne benn combat boobu. am nañu daanaan na fi ay mbër. kan daan na fi mujjee bëri. fourrière après fourrière. daanu ko waaw waaw mu ñëw si kan. si si sa daan ñang baalo. ñang indi damay xeex damay bëri man moom làmb du ma indi benn damay xeex damay bëri. waaw damay xeex damay bëre làmb lu mu laaj dama koy def pour am ndam. yoof moo ma sas te yoof dama leen amel bor. yéen a jël mel écrit de. jël mel écrit te ren gi lay gën a lay gën lii. dañ leen troisième sorte troisième bi yow lay doon. sekk ndaanaan na après doom fay ñëw nga tegu ci. waaw sekk ndaanaan koy encouragé rek ñoo xam ne làmba noogu la daaw ñu noogu lañ débuté suñu première sorte dañ ko ñàkk noogu lay demewaat rek incha allah yoo ñu sas yoof li mu ñu sas dañ koy def. waaw dañu sas pour ñu jël leen paie yóbbul leen Yoff si kanam kon nag loolu la ñuy def drapeau Yoff lañ boot bootuñu drapeau bu ndaw. nga ñëw dal ci spécial na. waaw man yàgg naa bëree spécial man bi may bëree grand combat soo ma doon man deux combats laa bëri bëri grand a lamba ba mu mën a bëree xa may bëreel ñi spécial wala yooyu. dañ koy nangu yàlla dogal lool dañ koy nangu waaye bu nekkoon làmb dama tegoon ci yoon yu ma tegoon kon du ma geesuñu. cey booy jobaas ak metti boo jobaas day yooru xam naa ko bu baax. Mhm, day yooru du xeex xam naa ko. ñu ngi lay ñu ngi eh, boo jobaas mu maa seetaan xam na ma. waaye lébu bi. Eh, kenn du xeexam moom. amul benn mbër mu mas a taxawal ñi ma commencé bëri ba léegi mbër taxawaa na xeexaa man amul. bu xeexee dama koy dóor mu daanu loolu moom maa ko assuré. bu xeexee nga ko mu dóor ko mu daanu loolu moom leer na. xam naa ko day yooru ragal la day yooru ji. waaye bu yooroo kili baa nga koy xaar suuf. booy Jobaas du ragal nag. Ah, du ragal ma dëggal boppam rek combat bi laa la bu dëggalee boppam du yàgg du ma si du ma si xiin xaala mooy damay toog sumay tànk diri ko jëm si kawam. kon su ma la déggee taxu laa jóg. am na leneen lu nekk soo bopp déggoo man li ma toog deux ans yi ma toog dama toog pour liggéey que entraîné nag ànd ak sumay mbokk ànd ak sumay xarit ñu liggéey li ñuy liggéey pour rek wane suñu bopp nekkul combat bi. saison ren bi dañ ko am lu bare bare lo xam dañ ko wara wané ñun liñ liñ ñàkkoon ci làmb dañ ko bëgg jëli ji waat mais lim la ëpp compétition est-ce que du ci jouer lool du ci eh? dara lool dara ci làmb ñun biñ juddo biñ doone xalé ba lay ñu ngi bëri tefes gi liñ dëkk dañ da mbali ter ñew bëri lool lañ xam ba léegi dama mbali ter dem bëri ji lool la xam lool ba légui ma ngi mbal ci geej gi ci geej gi chaque jour dama fi gis dara en tant que damay jël suñu jën dama la yóbbu ñu dem sedd dafa sedd jën daa manqué la di am lu mu gën a jën gën am waaw lu mu sedd jën gën am déggoo lu bi ma tagul une semaine combat bi mu lañ na ma arrêté nga normal xam bàyyi mbaale mi ba combat yi passé yow doomu mën nga waaye yow man sama maam demba dan Fodé Doussou ba Demba Thiaw ah fo de douce ba waaye yoof bo doon lim ay mbeur do fi joge bo do lim ay mbeur do fi joge fële ngay gis ne dem na ay mbeur la do bismi dooy la surtout mbeur nga me ne ko dum ba dem ciow moy sa mam dem ciow sama mam la so mam la dem ciow so mam la mo so mam ño bokkan daya baay ño bokk ben keur gi wa keur gi mu doon ngémboo di génn foofu laay ngémboo di fa genn kon li nekkon ci dem ciow dal lu ma deg olof di wax la ca set waaw ñu no li si sët xaw ma li si maam. li si maam sët day doon. waaw kay ñun léegi doon ko Demba Thiaw. doon nañ Demba Thiaw. Abdourahmane Ndiaye fa la naan Demba Thiaw Yoff dama koo nax. mosu kaa daan waaw dégg naa man na que trois dimanches muy daw. loolu na ko de. waaw laa jël mag ñi mag Thiaw Yoff dama koo nax. Moro boo bu ñu duggoon si biir dëkk bi damay dem ba si benn paas la ka moom mu waxaay yow. Booy Jobaas du la nax. kenn Booy Jobaas mënu ma nax Booy Jobaas la de eh. do day yoru man xamna ko day yoru te bu yoru ma dóor ko mu daanu de lolou mom lamba ji mom na dëggal bopam rek bu bopam boppam lay wax jine promoteur bi teug Assane Ndiaye suma jour bi moy première fois mu teug la wala Assane Ndiaye mo moy sogo teug daw bu gono suma combat way combat da jotul la antu quoi waaw man mom ngi kay sante digg geureum waaw combat mom na xamne ne yof gep mobiliser wu nañ yof gep genn nañ pour jappale ñu ñu am ndam inshallah rabbi wotel waaw may o wa yof gep fukki penc yeex ñaari Ngor Wakaam fépp di oo waa gine di oo waa Guinée bu baax a baax a baax a baax taxaw nañ ma jàppale nañ ma bu baax ma ànd ak ñoom liggéey di gërëm Kaja bu baax a baax a baax a baax moom ma aw ma fayam di gërëm suma waa fan si club président yi bakku seen ñëpp góor gi ndooy gars yi ñoom ñëpp ñëw gars yi mafia bi suma gaay ñoom Mboor Sarr gars yëpp xam nga ay doomu yoof gars yi may àndal entraînement Ablaye Diop kaabal gi xam nga boo yëpp ama xam di oo mool yëpp ne leen combat bi nañ si jàpp Djibril Gueye Papa Ngala. dëgg euh, nga wax maa ngi si ñoom Diouf Sarr Diouf Sarr Abdoulaye Diouf Sarr suma xarit la suma papa la suma lépp la man si sécu man si ñu ko sécurité laa bokk. ñu ngi nuyu Abdoulaye ah, di leen oo ñoom ñëpp monsieur le maire si laa ñëpp xam di oo ñëpp di oo gars yi yëpp gars yi nekk si mafia bi yëpp na ñëw gars ñu jàpp si combat bi xam ñu dem régler li ñuy régler dóor waa ji mu daanu ñëw toogaat fii dugg see biir Yoff waaw waaw merci waay. jërëjëf jërëjëf. ayca Demba Thiaw Demba Thiaw la woon war a bëri le 29 décembre ci stade Iba Mar Diop digganteem ak Boy Diobass Assane Ndiaye bool production bool bool mag bi borom Iba Mar moo ko war a def loolu ci stade Iba Mar Diop grand combat ma nga dox ci diggante Alioune Sèye Junior ak Tafa Mbër combat yërmande la Alioune Sèye Junior bi mu fi mujj mbay guy gi mu fi mujj ko daan kon ñoom ñaar defet interdit mooy xale. ak mag olof Ndiaye ne expérience face à la jeunesse. bool production Assane Ndiaye xaar ñu ngi ñëw boo jobaas xaar ma maa ngi ñëw noonu la demoon Modou Pouy maa lay bëgg di la siyaar petit production noonu la mu Modou xule ba mu nekk ci caméra bi ak dan yi di leen bëgg di leen siyaarewaat di leen wax am leen jàmm papa dem naar Kër ma Massar bi du ma la fàtte mon nami mon frère am leen jàmm ñi woon fii Yoff noonu la demoon champion yi wax na dem ba caw doomu Yoff Modou Dia di sant Cheikh Abdou Karim Mbacke naaru maam aw fay bi di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér jërëjëf